ci loxol diwaanu xiyaarul muridina fi xidmati aydil aalimina nekk fi fi kër Mbay Faal ci njiitalu Sëriñ Yaxya Siin bokki taalibe yépp ànd ak moom boole seen bopp nekk benn boole seen xam-xam nekk benn boole seen pas-pas nekk benn waaye itam boole seen alal nekk benn jëmmal bés bi ci gën gaa rafetee anam kon mbokki julli di mbokki taalibe yi mbokki seetaankat yi bu fas yéene ànd ak yéen ba mbooleem guddi gàmm gi yépp li ci xew ñu mën leen koo dégteel ñu mën koo ànd seetaan waaye tam mën a teewlu waxtaan wi nga xamante ne sëriñ bi dina ko waxtaan muy waxtaanu fees dell ak dénkante ak fàttalante ci li ñu fi indi te bàyyi ñu di sant Cheikh Ahmad Mbacke maawul ayaat ginnaaw bi nag sante sunu borom julli ci yonent bi euh, sëñ Modou Mbacke Eh, def na ay at nga wax ni ñun waa kër mbay fall digal nga nu gàmm gi ñu di ko taxawal muy ndigal lu xam si jële nga sa maam cheikh ahmad mbàkke sëriñ touba si ahmad bamba ak ah, muy guddi goo xam si guddi gu fees dell ak yiw la nga ni ah bu ma sañoon di wax lu romb waa kër mbay fall Ah, ba tax na nga jël ko ni yenn waa Kër Mayfalla dama leen delloo gàmmo gi ngeen di ko taxawal ah léegi nag mel na ni eh, mbir mu xam si tey nee nga ni dénk nga leen ko waaye mel na ni yow yaa ngi ci jiitu ah mel na it ni itam ni mbokki taal bi nga xam si tey ñoom lañuy séqal waa kër kër gi muy eh, kër eh, maawul ayaat dafa mel ni ñoom daal seen taxawaay wax dëgg yàlla mel na ni bis bi daal yiw woowu moom ma bëgguñu ko bàyyee kenn ba tax na at yi yépp at mu jot seen taxawaay ñoom dafay rafet ba nga xam si defe nañ sax ñoom de li ñuy def ci gàmm gi daal ah ëpp na lu waa kër mbay faal di def kon ah ñu ngi lay seereel fii ni la sant nañ la ba ci kanamu sunu borom ci xéewal yooyu nga xam si tey yaa ngi koy taataanal ci di ko jaarale ci màggal guddi gi muy guddi nga xam si di guddi nga xam si wax dëgg yàlla saa yi ñu ko màggalee gis nañu at mu jot eh, day màgg day jëm kanam kon mel ni rek foofu daal dañu nañ caag ndigalul suñu borom ndax sunu borom daal mu ngi ciy jàpp ndax bari nañ ci lool ci mbooloo mi waa Kër Mbay Fall ñoo xam si tey ay xale yi tuut lañu ñu wax ay tuut tànk xam ni ñu ngi ci juróomi at uti fukki at waaye bu bis bi jotee seen taxawaay ah dina eh, firndéem bi daal wax dëgg yàlla yow sa wàll bopp jàpp nga ci guddi gi te ki xam ne mooy borom guddi gi mooy Muhammad sallallahu alayhi japp na ci kon guddi gi nga xam ci tay ñu koy dajé ni ñu la séral ni wa kër mbay faal mbooloo ko ci mbokk euh, magi talibé yi ñu mel ni ñoom sëñ Pape Seck sëñ Ngem Ndiaye Abdou sar ak ñeneen ñoo ñu mel ni ak soxna yi ak euh, ñu xam ci tay ñoo jóge ci ci ci yeneen dëkk yi manam di wa kër mawul ayaat ñom ñëpp taxaw nañ ci taxaway bu rafet ngir and eh, ak ñun ci bis bi kon dal yax na wax ji moom du mën a bari ndax waxi sant la rek sant ndax ci li nga law fàggul li nga xam si eh, amuñu sik sàkk ñu ni ëllëg eh, dinañ ko fekk amuñ sàkk ci li yiwu kawe la bu nga xam si ni bu ëllëgee dinañ ko dina dina nekk payu kawe kon ñu ngi sant sunu borom foofu di sant kon yaakaar naa ni wax ji moom du mën a gudd sant sant boobu la rek sant moom ah, du du passé sant nañ la di sant suma borom di sant Mawlaana Xaadim ah, Rasuul kon ginnaaw guddi gi moom guddeeg delluwaat ci suma borom la guddeeg delluwaat ci ndigalul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moytu ay ah, delluwaat ci xam li mu yoon yum ni digal tege ca te moytu ay tereem kon guddi googu guddi gu waxtaan la eh, kon dama lay daal di jox kàddu gi rek eh, nga waxatinu naka la ñuy def ba tegu ci siraatal mustaqim naka la ñuy def ba daw seytaan yi naka la ñuy def ba eh, moytu pakk pakk pakk yi nga xam si bakkan ak bànneex ak àdduna da koy teg ci kanamu yoon wi guru suruh borong di subhanahu wa ta'ala di laku gitu, cemong syaitan di kutuban boleh usung ini cerci di pas pas di kartu cerci lepp lu manki ci suruh pas pas ci lañu ko wara fasal ci ne yalla ci mom dañu fasatu lu bokk tak yàlla na ko sunu borom bi subhaanahu wa taala ko jëkkal waaye lépp lu ñuy génnee ci suñuy kàddu te mu wuuteeg lam bëgg ñu di ko génne ci sunuy kàddu ba mu bindee sunu làmmiñ ngir ñu di ko ci tudd ca di ko ci fàttali ko te ci tudd loo xamante ni gërëm na ko ci sunu diggante ak sunu moroomi jaam yi lépp lu ñu ci dal ci rëcc rëcc yàlla na ko mën a jéggal waaye lépp loo xam ni ñoo ngi koy jëf ci suñuy cër te war ko koo jëfal te suñu cër yi ñu bind ko ngir mu jaamu ko gépp doylu bi ci am ba na la ko war a jëfe ci suñu diggante moom dara manque ci yàlla na ko sunu borom bi subhanahu wa taala bu la jëgg la ñu di ko sant ci ni ñu ko waxe ci tàmbali waxtaan wu ne te ñu koy dund ci anam bu ne fu nu toll ñu wax ni alhamdulilahi ala kulli xaalin ndax ab jaam day bu settantalee dana ko boromam cant boo xam ni dana am fu mu tàmbalee mu yem ak fu mu jaam ba mën a toll nag kon sunu borom boobu bii nga xam ni fu nu toll waruñoo deñ ci di ko fàttaliku ci di tudd turam yu sell yi ak teewlu jëmmam jëf waruñoo deñ ci di ko fàttaliku di ko jëggulu mooy tax ñu daje ak njëggalam waruñoo deñ di fàttaliku xëyal yi nga xamante ne defal na la ko di ko ca sant ndax mooy tax mu sàmmal ma ko te aaral ma ko te dolli ma mënuñoo dem di xool jaamam yëpp mu koy xoole jëmmam ja moom sunu borom ndax lépp la moo ko amal kon lépp rek jeexit la doj boo ko toppee mu delloo la ci sunu borom bi subhaanahu wa mooy ki fi nekk bi fi dara nekkatut mooy ki fi nekk bi fi dara nekkee te def ko fi ci coobareem waaye bu fi lépp jógee mooy ki fi des ba faaw te du fi jóg mukk subhanahu wa taala mu bind leeram njëkk bind jëmm ji nga xam ni moom lay def leeram li nga xaalamul arwaax magee nag xaalamul lu ja nit mun ta xiyaas ndax fofa nekul ay fan ni sunu fan yi nga man ko wàññi nekul ay weer ni sunu weer yi nga man ko wàññi nekul ay at ni sunu at yi nga man ko xamni bis bi day dél ci dom ay bis su teewaloo nga ma wax weer su teewaloo nga ma man at nii day dél ci na bis bii de la won daw kon at nit matna sunu borom bind ko muy leer boo xam ne mi ngi ko bind ci jëmoo mi ngi ko jële ci jëmoo ñu tedd ja subhanahu wa bind ci mbooleem rooxi anbiya bi ak morsalina yi ak rooxi yi ci des waaye nag dàtt ba di ruuxu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu feeral ko moom jëmm ji ci guddi gii nu nekk mu bind leer gi nag la ko jiitu ci loo xam ni moom ñu ko bind moo xam lim bana ko toll mu feeñal jëmm jooji ci guddi gii nu nekk def ci moom leeram boo gi nga xam ni mooy xet li jaam ñi fii ci àdduna waaye moo leen di xet li ëllëg yow ñuy màggal guddi gi waaye màggal guddi gi mooy lan fàttaliku leer góor gi ak josaanam muy sunu borom subhanahu wa ak len moo tax yónni leer góor gi ci kaw suuf muy xettaliku jaam gi mag ñi fonkoon ko lool rawatina Mawlana Cheikhul Xadim wax ci wax yu bari dëll ci dëll yu rëy yoo xam ne ki koy dégg te dese caa am ak dégg ki koy dégg ci noppam te amu ci déggu xol mën na koo jaaxal ndax su ko tëkkalee fa innahu kaman adal yawma olaynin wa sabar wa yawma badarin wa nasar xayral wala mu faqir su ko tëkkalee ku teew ci guddi gi mel na ne ku teew xare badar nga xamante ni weeral koor la woon ñi nga xamante ni dañoo dox yàlla seen bopp te jaarale ko ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mu gën a leen seen jëm gën a leen seen alal gën leen seen jaboot ñu bokk seen jeesi ci biir weeru koor di xeexi ngir kawe baatul yàlla defe naa ni ku fekk wut loola nga mën a teew génn gudd ñu yéegal la te ñooña war ngaa xam max naa wax doo bu baax su ko tëkkalee nit mel na ko teew ca xare Xunayn nga xam ni xare bu metti la woon ci jullit ñi rey nañ ci ñu bari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gaañ nañ ko gaañ-gaañ yu metti ci xare boobu ba ñu defee sax faat nañ ko ci biir xare bi kon jëmm guddi gooyum fanaan ñu ne la boo teewee ci bis boobee nooyam ngabbu jëlsi di xeex ngir yorante bi am ndam yàlla am ndam defe naa ni guddi googu kuñ wax ni buñ ko méngalee lool yi war nañoo xam maanaam moom baax te jàpp ko إحياء المولد البصير يعني عيان الديور فيه شفاء للصدور لكل حاجة ينتهي dundal guddi gii nga xamante ni ci la sangu mbindeef yi feeñ dana aar njaboot bi dana aar kër waaye saafara ngi ci ñeel dënn yi loolu defe naa ne dama li ci Sëriñ Tuubaa wax amul ci bis bu mu ko wax amul ci guddi bu mu ko wax mooy bis bi ñu xam ne mooy bis boo xamante ni sëriñ bi moo ko daan defal boppam moom moo leen ni su fekkonte ne sunu borom dogaloon na jumtukaay yii am yi amoon ca jamono booba ñu doon ko teg di ko seetaanaat danañ xam ne ñi ma ko doon dundale kenn dana ko dundale loolu ci réew mi ñu nekk ak ñu ko fortoon ni mu ko jàppale moom sëñ Tuubaa ni ma ko waxee léegi mooy bis bi daan defal boppam di ko dundal boppam ci njëriñ ci mu baax su ma sa dikk weer weer su ma saa teew mbëttin fu mu tolloon rek bu doon benn la dana nekk fukk ak tabax bu doon benn la dana nekk fukk wala téeméer lépp ngir bis bi su ma saa dikk penc bi doon fees dell fu waaye mën a taxaw jàng la fekk kuréel yi nga xamante ni ñoo jàng xasida ay kuréeli kuréeli kuréeli mawlud doon góor ñi tooge ne jigéen ñi tooge ne sëriñ bi ci boppam day génnal boppam it benn li ci ëpp moo koy séddale boppam di ko joxeel boppam bis boobu yi képp koo xamante ni ak jullit nga war koo fonk waaye képp koo xamante ni ci biir toolu lislaam bi Sëriñ Tuubaa mooy ci sa jëwu nit war nga koo fonk bu baax jamono nag dafay dox di dox ànd ak ngir ay illa waaye nag lu xam ni daal guddi gii moom la Sëriñ Tuubaa gënoon a mooy bis bi mu daan defal boppam màggal gi digle na ko may yi am yëpp ci la ko suñu borom bi subhanahu wa taala defal waaye bis bii nag nga xamante ni kii di sàngal di wasilaam nga xam gépp mooy sant yàlla ak tagg rasulillah sallallahu alayhi wa ak di julli ci moom li mu daan def ci bis bi dama ko def ci benn bis moo waroon am bisam bi mu gënoon a doon ko defal boppam ndax bu dee màggal la comme nii ñu ko dajaloo Tuubaa ci jamono Cheikh Mouhamadou Fadou moom moo ko woote ñuy daje Tuubaa di ko fa defee ngir yërmaane ak bëgg ñëpp di daje foofu di sëriñ bi waaye sëriñ bi ni mu ko digle woon ci wàllu boppam moo di fépp fu ab teewlu ba nekk mu mel ni rek ñu ngi cay bi tam xarit jot la wala bis bii kat bis sàngal la bu dee ganaar nga tolloon ci sa biir kër sa njaboot nga defar eh, ko bu dee man nga nag nga defar ko bu dee man nga ko waaye kenn ko ci nekk toog ci këram defar ko foofu moo koy taxawal boppam ni ñu ko waxee léegi ci péncu njëriñ mag ñëpp dañu foofu foofu jëkk muy nekk ñëw njaareem sax ndax 1912 dañoo njaareem waaye bi mu nekk ci daa ko def am na loo xam ne sax bi nga xamante ni mi ngi sanc Touba daa ko def te loolu la sanc Touba ba nga xam ne jiitu na 1895.